asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci seen plateforme Akan Mentor ñëwaat nañ tey ci seen beneen vidéo euh, ci cours bi di Microsoft Office Word tey jii nag di seen euh, juróom mm, ñaareelu vidéo ñu war a waxtaane li nga xamante ni kon moom moo jëm ci tableau yi ci Word kon ci cours tey bi ñu fas yéene jàng naka la ñuy euh, insérer tableau kon ci document Word Euh, pour nga euh, insérer kon document Word da ngay daal di ñëw ci onglet bii mun di tudd insertion léegi boo ñëw ci insertion gis nga fi ñu def tableau tableau ngi nii ajouter un tableau donc boo cliquer fii gis nga fii am nay cage par exemple gis nga neenal tableau mooy benn ligne benn colonne gis nga fii benn ligne ñaari kolon benn ligne ñetti colonne benn ligne ñeen ñeenti colonne gis nga looy gën a téye souris bi di wàcc rek loo teg mu wax la gis nga par exemple fii nee na tableau bu huit lignes ak dix colonnes donc soo cliqué woon ni normalement rek gis nga dafay daal di créer tableau boobu léegi xaaral ma daal di ñëw annuler loolu bu la neexee tamit nga ñëw insertion nga dem tableau après nga wàcc fii mu def insérer un tableau bu la defee insérer un tableau mu la ñaata ligne ñaata colonne nga bëgg par exemple ma def cinq colonnes ñaata ligne nga bëgg tamit nga def cinq lignes par exemple ni daal di def ok kon loolu mooy ñaari méthode yi nga xam ne euh, benn bu ci nekk rek euh, mën ma mën nga ko utiliser kon pour créer tableau cinq lignes ak cinq colonnes wala yaa xam lignes yi nga bëgg ak lignes yi nga xamante ni moom nga euh, taamu ak ak colonnes yi léegi nag nga seetlu fii ne boo xasee ba créer tableau dafa am ñaari onglet yu bees yoo xam dafay dafay ñëw ci document wu kii ci ci ci maanaam barre de menu bi nga gis nga gis nga fii am nañu onglet création ak disposition nekk ci woon waaye kañ la ci nekk mooy bi nga xamee ni créer nga tableau bi ba noppi waaye ñaari onglet yi gis nga dafa nekk ci suufu outil de tableau kon outil de tableau ngi nii nga am onglet création ak onglet disposition kon lépp loo bëgg def ci tableau bi rek ci ñaari onglet yi lay nekk bul jaawle nag création bii nga xam ne mooy nekk ci suufu outil de tableau ak création bi nga xam moom moo nekkoon ci menu bi ci onglet bi moom day nekk day ànd ak document Word bi waaye bii moom du feeñ lu fekk créé woo tableau bu bees kon ci ñaari onglet yooyu nag la ñuy euh, xaw a yàgg tuuti ngir mën leen gën a mën a maanaam euh, expliquer kon ci euh, tableau bi léegi nag tableau yi tamit bu fekkente ni da nga bëgg maanaam sélectionner benn ligne par exemple ma jël ligne bi kii li fi fi colonne bi maanaam li la ñu woowee ay cellules wala ay cases soo bëggee sélectionné colonne bi kese da ngay indi souris bi ba nii ci biir colonne bi nga daal di cliquer gis nga kon mu daal di sélectionné kon li nga xamante ni moom mooy euh, colonne bi donc bu la neexoon aussi boo sélectionné ba noppi nga téye sa souris pour continuer mën nga sélectionné yeneen ligne wala yeneen colonne gis nga. donc boo ko teewee rek bañ a bàyyi nga sélectionné nombre de lignes wala nombre de colonnes yi nga xamante ni kon moom nga daal di bëgg léegi nag loolu kon day baax nga xam nga nag ngay sélectionné cellule cellule nag mooy case yi nekk ci biir par exemple fii bi case la su ma defee nii damay indi souris bi ba à rek ma daal di cliquer mu sélectionné donc boo bëggee sélection yu bari danga nga koy téye da nga koy sélectionné ba noppi téye na continuer di déplacer sa curseur waaye doo bàyyi euh, kii bi bouton soo bàyyee nag kon sélection bi daal di arrêté bu fekkente ni da nga bëgg sélectionner ligne entière ci tableau bi da ngay ñëw par exemple première ligne bi laa bëgg a sélectionner damay ñëw ba ci ligne bi ma cliquer foofu nga ligne baa ngi nii ci càmmoñam su ma cliquer rek mu sélectionner ligne yëpp bu fekkee colonne nag nga bëgg a da ngay daal di ñëw kon ci kaw colonne bi nii ba flèche bi gis nga ni mu nekkee curseur bi nekk benn flèche nga sélectionner bu doon fii la boo cliquer mu sélectionner bu dee fii boo cliquer mu sélectionné gis nga noonu la ñuy sélectionné kon ay colonne bu dee ligne da ngay ñëw nii à gauche mën nga sélectionné ligne bu la neex mais bu dee colonne da ngay ñëw ni ci kaw nga tiim colonne bi daal di kon euh, daal di kon euh, sélectionné bu dee tableau bi yëpp na nga bëgg sélectionné ni ñu koy defee mooy gis nga tableau bi fii am na benn carré boo xamante ni moo moo nekk nii ci kaw ci sa càmmooñ ci kaw tableau bi donc boo cliquer rek foofu bu daal di sélectionner kon li nga xamante ni moom mooy euh, tableau bi ginnaaw nag boo sélectionner sa tableau ba noppi mën nga yokk hauteur bi mën nga yokk tamit maanaam euh, euh, kii hauteur tableau bi ak ak largeur largeur yi bu boobaa nag na koy defee mooy da ngay dem ci onglet disposition fii donc boo ñëwee ci onglet disposition nga daal xool lu ñuy wax hauteur donc fii boo xoolee ci onglet disposition gis nga li mooy tableau de ligne donc mën naa ko yokk par exemple ba 1,5 centimètre gis nga sooy yokk yaa ngi gis ne dafay 1,5 yaa ngi gis ni mi yokkee kon tableau bi bu dee euh, largeur bi par exemple xaaral ma wàññi ko ba 2 centimètres gis ni muy wàññee largeur tableau bi gis nga ko voilà donc noonu la ñuy wàññee kon li nga xamante ni moom mooy largeur euh, tableau bi ginnaaw loolu bu bëggee kon centrer sa tableau donc na ngay def mooy da ngay daal di sélectionner tableau bi yëpp sélectionné nañ ko ba noppi après nga xool yi nga xamante ni moom nekk à côté nga fii euh, bu dee bu dee dee tableau bi nga bëgg centré centrer donc mën nga euh, daal ñëw fii accueil nga ñëw fii daal centré sa tableau voilà donc da kay koy lépp nga dem accueil boo noppee nag nga daal centré centrer sa tableau boo noppee su fekkee da nga bëggoon tey maanaam fusionner say say colonne sa sa ligne maanaam ligne bi boo xoolee ligne bu njëkk bi par exemple am nay cases yu bari cinq cases la am léegi bëggatuma am cases yi dama bëgg mu nekk rek benn ligne ak ak benn case kese bu boobaa na ngay def mooy da da ngay ñëw ni sélectionner ligne bi boo sélectionner ligne bi ba noppi nga daal ñëw ci onglet bi nga xam moom mooy disposition après nga daal def fusionner donc boo defee fusionner gis nga ne ligne bu njëkk bi fusionnel na ko donc dindi na colonie def ko tout simplement benn ligne kese bu la neexoon tamit nga tànn par exemple par mën nga sélectionné yi ñeent yi wala nga sélectionné ñeent yi tey par exemple sélectionné naa ñeenti euh, maanaam ñeenti case su ma ñëwee ci onglet disposition daal di fusionné donc nga gis ne daal di na koy euh, fusionné beneen bi nga xamante ni moom moo ci euh, topp tamit bu neexee nga fractionné par exemple euh, fusionné mooy nga boole waaye nga fractionné moom mooy nga nga nga nga daggaat encore par exemple su ma jëloon mm, bii tey case bi mën naa ko fractionné ci trois lignes ni nga defee fraction bi da ngay do da ngay sélectionné colonne maanaam case bi nga nekk après fii def fractionné nga boo ci cliquer mun la ci ñaata colonne nga ko bëgg a def bon nga bàyyi mën mën nga bàyyi colonne bi benn waaye nombre de lignes yi nga ne ko trois lignes donc soo defee ni da ngay gis ne gis nga am na un deux trois donc nga xam ne defal na la ko ci trois lignes donc euh, ñu daal ñëw léegi wan leen tamit naka ngay euh, fractionné gis nga boo xoolee ligne bu mujj bi par exemple bu ñu xoolee ñaata colonne cinq colonne nga bëggoon nag ci cinq colonnes yi nga nga nga dindi ko mais fractionné ko en quatre donc da nga koy sélectionné ligne bi ba noppi nga fusionné ko mu nekk benn soo noppee nga dem fractionné ko mun la ñaata euh, colonne nga daal def kat donc gis ne daf koy daal di fractionné ci quatre colonnes voilà donc ñu daal di Euh, annuler ak contrôle Z liñ jot a def lépp ngir mën leen a jàngal euh, yeneen mën leen a jàngal yeneen léegi nag dañu daal di bind kon ay texte par exemple fii ma def salut ma ñëw fii def test ñëwaat fii ci suuf par exemple def def fi dara euh, ma fexe ba yëpp am texte rek donc ma ñëwaat fii defaat ama ñëwaat encore fii def fi par exemple nii waaw léegi ñu seetlu ne fii euh, am nañ fi quelques textes maanaam quelques mots léegi nag texte yi boo seetloo ñoom ñëpp daf leen def ci kaw à gauche ba pare mun ñu nekk à gauche léegi nag tey pour nga centrer mots yi ci diggu tableau bi il faut nga sélectionner euh, tableau bi ba noppi parce que dama bëgg texte yi nga xam dafa nekk ci kaw nekk à gauche yëpp mun bu ci nekk cellule bi nga nekk maanaam case bi nga nekk nga nekk au centre donc da ngay daal di sélectionner tableau bi donc boo sélectionner ba noppi nga dem ci onglet disposition donc boo ñëwee fii disposition gis nga fii am na neuf cases yu ndaw donc boo tegee souris bi fii daf lay wax coin supérieure gauche coin supérieur euh, au centre haut fii waaye ñun bii lañ soxla moom mooy centre donc boo cliquer centre gis nga texte yi benn bu ki nekk ci cellule ba nga nekk ca digg ba lañ lay centre horizontalement et verticalement donc bu la neexoon aussi nga changer xool maanaam disposition bi nga bëgg pour yeneen yeneen euh, euh, kii donc ñu daal di ñëw pour supprimer kon ligne maanaam comme par exemple boo bëggee supprimer benn ligne par exemple ligne bu mujj bi da ngay def mooy da daal di sélectionné ligne bi ba noppi donc boo ko sélectionné nga daal di ñëw ci onglet disposition après nga daal di ñëw fii mu def supprimer donc boo cliqué rek mu daal di supprimer euh, wan la yan option lan nga bëgg supprimer est-ce que da nga bëgg supprimer wala colonne yeeg naan bii su ma defee supprimer les lignes mu daal di supprimer donc ligne bu mujj bi donc xaar ñu delloo ko contrôle Z toujours pour annuler am na aussi beneen possibilité mooy nga ñëw sélection ligne bi ba noppi. nga ñëw def clic droit après ñëw fi mu def supprimer les lignes gis nga ci saasi dafay daal di supprimer kon li nga xamante ni moom mooy euh, ligne bi bu loolu weesoo ñu annuler waat pour récupérer suñu ligne récupérer waat pour récupérer ñu annuler pour récupérer suñu ligne léegi nag bu fekkente ni da nga bëgg supprimer kon maanaam euh, li nga xamante ni moom mooy lépp lu ñu bindoon ci biir tableau bi li ngay def mooy da ngay daal di sélectionner sa tableau yëpp ba noppi par exemple wax naa leen ne pour nga sélectionner euh, tableau bi donc fii ngay ñëw maanaam fii sélectionner tableau bi yëpp boo noppee nga daal di bës touche bi nga xam ne moo nekk ci clavier bi touche supprimer wala touche delete delete boo bësee touche supprimer nii gis nga lépp lu nekkoon ci biir tableau bi dafay daal di effacé wu. par ñu delloo ko toujours contrôle Z lay def pour waat ma jàngeen loolu ba noppi léegi na bu fekkente ni maanaam tableau bi ci boppam nag nga bëgg effacer da nga koy ba noppi daal di bës touche bi nga xam mooy effacer mooy backspace bi mooy retour arrière su ma ko defee nii rek da ngay gis ne dafay daal di effacer kon li nga xamante ni moom mooy tableau bi léegi nag leneen li ci toppaat mooy tableau bi bu la neexee nga def ci fond pour maanaam nga def ci couleur couleur de fond couleur bi nag pour nga def ko dangay ngay sélectionner tableau bi yépp nga daal di ñëw ci onglet création bi création gis nga fii mu def trame de fond fii laay cliquer après ma tànn ban couleur laa bëgg a def sama tableau donc mën nga daal di tànn couleur bu la neex kon loolu mooy li ñuy wax trame de fond bu la neexee tamit nga tànn uniquement benn ligne par exemple ni nii sama neexoon tànn benn ligne kese ma ñëw trame de fond daal jël benn fond bi nga xamante ni donc moom laa euh, soxla suma ma neexoon tamit ma jël benn kolon kese par exemple nii mën benn colonne benn colonne comme ni ñu leen ko jàngale woon da ngay ñëw fii voilà donc sélectionné naa cellule boobu ma ñëw trame de fond ma daal di appliquer benn fond rek ci li nga xamante ne donc moom mooy cellule boobu donc leneen euh, li xam ni aussi moom nga moom lañ bëgg jàngat encore mooy bordure donc bordure bi moom euh, pour nga def ko ara ñu dindi trame bi ñu mujj def léegi da ngay daal di sélectionner euh, tableau bi yëpp léegi na boo sélectionner tableau bi am na onglet bu ñuy wax création moo nekk nii boo nga ñëw daal di tànn style de bordure par exemple tey ma jël benn style de bordure ma jël bii par exemple donc boo tànnee style de bordure ba noppi da nga daal ñëw fii nga xam ne moom mooy bordure bi nga xool es ce que xaaral ñu jël bu gën a visible sax jël bu gën a visible donc style de bordure par exemple ma dem tànn bii vert foncé vert foncé léegi nag bordure bi nag soo defee gis nga bordure supérieur ci kaw lay nekk à gauche gis nga mu def que à gauche waa ñu sélectionné tableau bi yëpp ba noppi voilà donc bordure inférieure supérieure gis nga bii ci kaw la ko def bi mu def xaaruñ jël bu gën a leer sax bu ko defee voilà bii par exemple bi moo gën a rëy donc gis nga boo defee bordure supérieure ci kaw la koy def bordure à gauche gis na ni à droite aucune les bords gis na mu sélectionné lépp donc yaay xool bordure extérieure bordure intérieure bordure horizontale bordure verticale bordure diagonale gis nga yaay xool kon donc nan nga bëgg a defee sa ay bordure bu ci nekk rek nga tànn bi nga xamante ni donc moom moo la euh, ci doy xaar ñu jël bordure extérieure bi nga bës daal donc appliqué na ko donc loolu mooy li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu euh, bordure yi donc euh, bu fekkonte ni par exemple da nga bëgg euh, sa tableau bañ a am benn bordure aussi bu la neexoon nga daal di ñëw fii nga def fi mu def bordure nga taat aucune moo gis na tableau bi noonu ngay am sans bordure yi xaar ñu annuler def contrôle Z léegi ñu daal di ñaari case par exemple supposons ñu jël ñaari case yi ñu sélectionner ñaari ñaari kese léegi yooyu dañ bëgg appliquer bordure léegi nañ dem onglet euh, création donc ñu changer bordure par exemple ñu jël bi style bi ngay njëkk a soppi ba noppi léegi bordure ñu jël par exemple bordure inférieure ñu appliquer après ñëwaat bordure supérieur ñu appliqué gis nga kon def na fii bordure ci kaw maanaam inférieur ak supérieur donc bu la neexoon changer aussi beneen style de bordure ñu dem xool style de bordure ñu jël beneen façon bleu bi par exemple bleu bi léegi nag ñu jël bordure à droite ba tey ci cellule bi après nga dem bordure à gauche gis nga nga gis ne kon nu mu la neexee rek mën nga daal di euh, am say propre bordure yaay xool non utiliser donc kon ci kii boobu onglet boobu leneen li ci des mooy su fekkoon dama bëgg case yi nga xamante ni moom moo am texte case yooyu rek la bëgg sélectionné damay sélectionné bu njëkk bi ba noppi bii am na texte ma teg touche contrôle ñëw sélectionné bi contrôle ñëw sélectionné bi ba yi nga xamante ni yëpp dafa am texte daa jeex kon touche contrôle bi doo ko bàyyi soo demee ba sélection yi nga bëgg yëpp nag ba noppi bu la neexoon tey ngay dem def si ay trame de fond gis nga mu tànn rek maanaam euh, yi nga xam ne moom rek moom nga euh, sélectionné woon kon lii mooy li ngeen indiloon loon tey ci cours bi nga xam ne ba tey ci du la tey nag ñu doon waxtaan lu jëm ci wàllu tableau yi kon ñu leen jox daje incha allah ci beneen cours ba tey ci seen plateforme Akan Mentor